What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? <laughs> Some guy, some guy, begin naa begin bëgg begin leen before going faster allow me to reintroduce myself again in this Saturday I go by the name of Malachon and I'm from Senegal West Africa Rio City my town <laughs> Sonko na la ko jaral bon sama gaay tey li ma bëgg wax mooy je vais the man, de maanaam euh, le film wala la série wala la saison APR la saison des vautours la saison des des des des des des, des, des des, comment des gens qui ont fait et qui, qui, qui, qui, qui ont faim et qui ont accès à, à, à la suprématie di jiiroo nag seen loxo yi di tibb seen tànk yi di tibb seen nopp yi di tibb seen karaw yi di tibb man mënuma concevoir tey temps yi Saint-Ville xoolal ña ña mais xoolal désordre bi nekk biir APR man Macky Sall parti bi dafa mel ni Macky Sall borom keur bu ne si keur amu fa ben dogal amu amu man ne borom keur boo xam ne xamul li xew ci këram ay scandale sur scandale njabootam gi di ñew tay ji di sànnante ay xeer saint bu bu bu kii waar waxee Moustapha Cissé Lo wax fële Farba Ngom wax fii Moustapha Cissé Lo wax fële Moustapha Dia dafa wax li këla waxaat Sidi Kaba mais ñu ne si kër gi mais bu ma ne kër gu borom kër ne bëgg na law gars yi nekk ëtt bi di tëb booy di wax tax sañul wax da ma gis àlla moom nu mu demee noonu wala dañ ko anesthésie ah mais ñii ñii ñii ñii ñii yéen genre nit lañ dama am ñii yéen genre nit lañ Sénégalais yi amay problème bu faju amay problème que ñu ne fi def ay guerre de positionnement isin fil scandale sur scandale y a combien de scandale durant euh, euh, ces ces ces ces deux deux dernières années pétrole COUD ah Prodac 94 milliards ah euh, Falémé mais mais mais saa yi man lii man daal xam naa ne moom euh, analyse bi analyse bi ma si jot man c'est fin de lañ quoi parce que film bu waaj a jeex sa kër yëpp ay feeñ bande yi dañuy rayante pour man fi ñoom fa lañ mu ne nii quoi non non non non mais honte quoi mais j'ai honte mais ñii doo amul fenn amul dem bañ am scandale dem sax ba biir assemblée ñoom mais ñi ñi fan ñi fan lañ sàccul faux ñoom assemblée ñoom. suuf si ñoom pétrole bi ñoom ah est-ce aviation aviation bi ak ak ak kii bi sax éducation bi demeewul noonu ah mais Macky Sall Macky Sall il est inexistant fu mu ne nii il est inexistant ah mais recadrel sa recadrel sa yi recadrel sa soldats yi boo amee say doom say doom réew di naan seen papa moo leen yi wax booy bu sa papa moo leen yarul sa gars yi yaa leen yarul yaa leen yarul parce que yow yaa leen di yaa leen di fuyloo yaa leen di namee ay nga koy toog nii suba toog ah? man ne ku ñu anesthésié mais tu dis rien quoi non vraiment man lii mënu comprendre quoi soit borom kër gi moo amul fula ci kër gi ah wala doom yi ñoo ko faalewul ah wala dañoo jëfur dañoo jëfur ñoom dañoo jëfur parce que peut être yàlla moo leen waaj moo leen waaj weddi ko leen waaj kii quoi ah ñoom ñëpp a ngi jëfur Youssou Ndour jëfur euh, Moustapha Diakhaté jëfur ah ñoom ñëpp ñëpp a ngi ñëpp a ngi kër gi mel ni bordel tu vois amul benn kii ngir yàlla Macky Sall restauré benn kii quoi parce que vraiment sénégalais yi sonn nañ ci te boo xoolee nii ah, maa ngi gis démb xumaan quelqu'un que je salue bu posté benn vidéo nag man mu ko jaaxal mooy Youssou Ndour bu ay góor gu nay gars yi wu affaire yooyu noonu mais bu ay waxu 6 milliards marche lu gis kenn gis nga xumaan dama la bëgg a ne maanaam sénégalais ils ont vomi les politiciens dañ leen ba faalewu ñu leen gis bu ñu doon scandale tellement qu'à la limite ça devient banal dañ dem ñun sàcc sàcc ak détournement sàcc ak détournement dafa nekk affaire boo xam ne c'est naturel chez nous ne la kii parce que bu ñu dikkoon ni day bu ñu daan détourné 3 day grandiose pamee kaase na mais léegi kooku noonu moom loolu picc la léegi robaale ñoo fi ne on te de 6 000 milliards 25 milliards di wax noonu si population bi di bëgg dee population bi ne bàyyi la leen yàlla à part Guy nga kay sàcc di ko sàcc saa bu la laajee kan tay suba tay suba def lu la neex mu jepi la bayila la yaa war a rus vous n'avez pas honte vous vraiment vous n'avez pas honte te yërëmu Sénégalais yi Sénégalais yi te ma loolu dama loolu meuna mën non ma Sall fam Alzheimer Sénégalais ñi ngi souffrir les gens souffrent trois repas amatul liguey amatul les gens sont stressés eh. ku nek da ngay jema a dugg ay TikTok WhatsApp jéem a daxasu son mais li ngay dund ya ko xam ah mo tax léegi nit ñi bu ñu deesal duñu tàggoo duñu duñu sukkar duñu duñu feebar sama gaay yi leen nit ñi Sénégalais yi ils vomi loolu tax bëgguñ marché bëgguñ dara dañ dem ba dañ kanam na borom xëy fajal boppam mais attitude bi ñu am nii man gëm naa leen dañ leen talatul lu lu gis di day jéef ku min sa xuloo yeb la dañ dem ba dañ leen mais li leçon bi ci mën a tiré mooy bu ñu defaan élection donc ngeen faral ku baax ku leen tegaat ci raay parce que lii fu mu jëm xoolal anarchie totale lay indi anarchie totale lay indi il faut ngeen indi ko xam de te ko xam ngeen ko xam naa ko xam ngeen ko na la ko jaral Sonko na la ko jaral yeewu leen ngir yàlla Sénégal yeewu leen barke Rasulullah yeewu leen ay sonn nañu trop ñu lu ñu rus lu ñu rus amuñu rusukaay ngay sàcc ay nga lay jiñ ay sàcc ay milliards nga ñëw tabax fa nag nga tabax pale yor say BMW naan ay BRT tu vois def lu la ne nit nii non c'est n'importe quoi sama gars maa ngi tàggat vidéo bi quoi barke Rasulullah kër gi amul borom kër kër gi amul borom kër waaye ku nekk di tëb di kii fii arrogant insolent lu leen neex ngeen di def liggéeyul leen sénégalais yi ay troisième mandat moo leen intéressé ay maay kii fii kii ba Macky Sall ba muy métti ma ànd moom lépp sénégalais n'ont pas besoin de ça ce dont ils ont mooy ngeen rek suñu éducation suñu santé fexe ñu lekk courant bi ngeen wàññi ko ak yeneen ak yeneen mais loolu neex ngeen def sénégalais ñu leen jéppi dara ñu leen sax bu neex ngeen sax ci mille milliards faalewu ñu leen sax yàlla Sonko faral rek ba ñëwaat yaa waat ngeen